yaa saadatan yéen ay sang amruhum lañ seen mbir shura ak diisonte la min baynihim seen diggante wa yunfiqoona te ñu dundale jusaafan ab jal yow ma xaashura ci bisub xaashura maada taquluuna ana lu ngeen di wax fii bi zulmatin ci boroomuk lëndëm xana xat gog xerandi na ko ataakumoo koo xam dikkal na leen min baidin bàyyi koo fa sori yatlu bu di sàkku an nuura leer mu ne yéen sang yi nga xamee ne di alxuraan wax ne wa amruhum shura baynahum mooy seen mbir da ngeen di diisoo du ngeen xëccoo waxaa shura ngeen di topp lañ ca taamu ci dundle ak a yaatal ndax taamu ca barke ngërëm mu ne waaw lu ngeen di wax ci ku mel ne kii borom xasida yi nga xam ne ak lëndëm moo ko jaaxal mu bàyyi ko fu sore sori nag bëgg koo jox leer ba mu tàggoog lëndëm lu ngeen di wax ci ku mel ne kooku wasi libaasin ak borom koddaay mi na taqwaa ci ragal yàlla radaa loolu xëy na moom koddaay la xali xan di aj ràpp mu dànn sante lu ñu tilimal raama kooku sàkku na moom di libaasin ji tajdiidan ak yeesal wa tathiiran ak laabal lu ngeen di wax ci koo xam ne li ñuy wax koo daal ragal yàlla day bu ko amee it koo daal lam ci amee dafa ràpp lool tilim lool bu bëgg nag ko jox koo daal lu yees te set wecc kooku lu ngeen di wax ci moom nag waxaa ifin ak aji ragal wajilin kuy aji jàq ji jàq min zambihi ca bàkkaaram ba xajilin kuy ajurus raama ko sàkk na min fablikum seen gëneel ta miinan ak wóoluloo wa ta miiran akuk pal am mara ta miiran lu ngeen xam ci koo xam dafa jàq lool xelam dalatul ndax bàkkaaram bu bari rus ndax bàkkaar yu bari yi mu ñëw ci yéen nag bëgg ci seenu mbaax yàlla may ko mu mucc ba yilifaate waa xaalimin ak aji xam yorte ji te dana yaakaar min jaw di juudi ku moo ci tawub seenu tabe jaw du ab taw la juudu ak tab la allah yakkoona mu bañ a nekk ka balxaama bu ni baaxuura di mel ne ki balxaamut nu baaxuura lu ngeen xam ci koo xam ne xam nay araf nii waaye daa ñëw di yaakaar ci seenu mbaax yàlla bañ koo boole ji borom xam-xam ya alal bu yàqule mel ni balxaam te yaakaar yàlla bañ ko boole ci ñooñu ngir seenu mbaax rek yàlla may ko loolu wa jaahilin ak ajiréer yobbu tax yi kook dana sàkku xilma rijaali xam-xamu góor ña bikkum seen daraja xataa wisaa ji la ba muy rawanteeg dal xirfaani boroom xam yàlla ga tayfoora te mooy tayfoor lu ngeen di wax ci koo xam ne moom dafa dofe lool ci xam-xamu baatin umpaleel boroomam bëgg na yàlla boole ko ci góor ñi amul cër ci yàlla ba mu àgg ci jot tayfoor waaye moo saqin ak ku ñu yeew bi xibaali day ni ci buumu bor ruqa jaamu loof na ko bi xii ca bor ba waa sàkk dikkal na la yàpp lu ba di sàkku tànn wiilan ak may wa tànn wiilan akuk leeral lu ngeen xam ci koo xam ne daa bari bor ba mel ni bari da koo jàpp yeew mu bëgg nag mu dikk ñu yeewi ko may koo may ba mu tàggoog ci bor ridwaanu rabbi ngërëmal saa boroom aleykum yàlla doole nekk ci yéen fan xaxoo yàlla na ngeen dalal wóolal yi samay xundooñ xundooñ mooy wóolal jamxu la waaye xundooñ ci bopp mooy mar wu méttee métti yaa saadatan yéen ay sang kaso kachefo yoo xam ne wuññi nañu maanaam muri nañu xanaa waris nu addayaa jiira lëndëm ya dafa daanee li wax ji ñaan yàlla mu dolli ngërëm sëriñ bi mu ne kon sëriñ bi yàlla yàlla dolli ngërëm waaye sama maru metti yi kat mat naa dalal sama lëndëm gi ma indaale it mat naa dàq mu dem laata bu xaloona du ngeen nay bi may joodin ci am am la kum ñeel leen abaral mukk waxaat uñutum te joxeef na leen tàbb siiran ak bégal bi hamdulilah ci sant yàlla xam naa ne li ma bëgg am na fi te yéen nayu leen li ngeen am rek attan koo joxe kon daal naa am lii ma tax a jóg fa ajaaba te sëñ bi tontu ko radiallahu taala anhu bi maa ci loo xam ne maanaahu maanaam mooy dana ko kamaa xulta ni nga waxe rek wa talabata ak ni nga sàkkoo fii haadihi l abyaat ci lay bayit fa innaka naka yow tanaaluhu danga ko am insha allahu taala sëñ bi tontu ko ne ko ni nga waxee ne moom nga ko bëggee noonu nga koy amee insha allah wa lahu aydan in irtaaxa ndeem sigire na murtaaxul aji sigire maanaam aji maare su maare li ma wax nan ngir ab dal yasuruhu bëgg da koo bégloo fa inni naka man raayihun aji sigire laa li tuuba jëm ci tuuba aw ilaa mbàkke wala jëm ci mbàkke mu ne bu amee kuy bëgg ci béréb ba mu nekk mbaa beneen béréb xolam di ca sedd wuti nan man sama xol mi ngi sedd ci tuuba rek tuuba ak mbàkke fi suñ bi nekk rek mooy tax sama xol sedd béréb bu ñaari béréb yooyu rek béréb bu suñ bi nekk rek mooy sedd sama xol wa imma xadaa ndéem xëy na xaadin aji xëy ilaa misra jëm misra raayihan mbir mi aji gont fa inni naka man la raayihan aji gont laa ilaa daaru salaami jëm daaru salaam su amee kuy xëy mbaa muy gont jëm misra bokku nuy mbir man daaru salaam rek laa jëm wa in yara ndéem dafa gis waslal gaaniyaati jokkoonteeg jongama ya yooyu ñoom alxolaa ñi kawe ga ñu seetlu ne xiyal xulaa ji wax huwa moo gën a yelloog waslal xaaniyaati fa innal xulaa naka kawe ya xindi fi man xuyoolun moo di ay fas sawaabixu yu di woy fii maanaam yoo xam ne bu ñu daw dañuy tàlli ñareet mel ne kuy féeri ci ndox yoo jub na danañu dog alfayaaf yi mànding yi muy àll yi fadd faddan ab àll baada fadd fadin ci gannaaw ab àll kama laaxa ni kiy feeñe barqul melxat laa mi xam ngay aji melxat fi saa bi ci biir xiin yi nga xam ne xale yaa nekk na seen kaw rijaalun ay góor xam muhum yoo xam seen yitte fi sodaa ci rañaan ma arida moo di ngërëm moo di am ngërëm ilaa an badaa jëm ci ba feeñ naxwal ahibati fa wàllu soppee laa ixun aji feeñ ne bu amee ñu defe ne am jongoma jigéen ju rafet di jokkoon teeg moom mooy dara wéete nan man kay naa ànd ak ñi nga xam ne dañuy xëyee ka gont di nangoo yendal di nangoo fanaanal wuti sëriñ bi ak waa sëriñ bi ñooñu nga xam ne seen yitte jëpp mooy am ngërëm ci yàlla tax ñu jóg nag duñ yendal duñ fanaanal wuti rek sëriñ bi ba ba ñu àgg ci moom loolu mooy saa mbir man yaxir roona danañu rot lil azxaani ñeel daaju sikkim ya lillaahi ngir yàlla sujjadan mbir mi ñooy sujjoot wa axraqa te labal insaanal xoyooni nagu bët ya sawaafixu rongooñ yu diwoy tuuru rongooñ yu sotti ko dañuy daalu di sujjootal yàlla di jooy ba nga xamee ne siin nag yi bët day lab ci rongooñ yi wël wëj bi ñeel na cofeel ga waa ñel na njàqare cofeel ga fii yum ci seen biir mawqifun ab tàbbikaay ay yu mawqifin bu mu cib tàbbikaay isa ma shadaw ndéem jooru nañu wurqul xamaami wéy xuuni petax yi te taarif danañ jamanteeg ñoom dafa wax ne cofeel bi nga xam ne moo leen fees seen digganteeg sëriñ bi ak seen digganteeg seen boroom dafa sori ci ñoom ba nga xamee ne bu ñu déggee pitax yi ci guddi ñuy jooy seen xol day dem fu soree sori mel ne pitax yi dafa leen yëngal ñoom itam tax ñuy jooru mel ne jooy pitax yi moo yëngal seeni jooy walil kulli te ñeel na kenn ku ne ci ñoom daa un jàngoro lil mahabbati ñeel cofeel moo dilun guy aji tër faj gu tër saafara waxad jaraxathum te jam na leen moom cofeel ga fastaxaalat soppiku aljawaari hu cër ya mu ne ñi may wax koo ci gis cofeel gu mu am ci sëriñ bi ak ci boroomam day jàngoroom joo xam ne mënta fexe ba faj ko ëpp na ko doole cofeel googu dem nag ba feeñ ci cër yi cër yu soppi ko boo gisee xam ne moom mii am na lu nekk ci moom wala shaafiyan te amul jenn aji saafara xayral xabiibi ndare soppe ba àllës yi ba nga xam ne bii ci dara jaam kawaa siduna sunu way lamb rawaa bixu way tonawoo lañu ca moom min raaxatayhi ci yaari téngam ya mu ne nag ñu mel nii ma wax te ñoom laa bëgg a àndal li leen dal kenn mënu koo faj ku may sëriñ bi sëriñ bii nga xam ne soo bëggee tàggoog lambale bëgg a taqoog tono demal ci moom rek boo demee ci moom daal loo daa lambale tàggoo nga ak moom tono rek ak yokk rek nga daal di taqool xoow moom ibnu xabibillaahi mooy doomi xabibillah ahmadu te mooy ahmadu bamba man ka nga xam ne bii ci darajaam wala ci moom yasiir lay doxe saalihun aji baax xalaa na ji saxaadati ci yoonu taxe nee na mooy sëtub xabibullah bi nga xamee ne ku bëgg a baax te aw ci yoonu taxe moo la ci awale teete la ca imaamun ilimaan la humaamun ku di ab sang ay la mun te géej la xalamul hudaa te mooy màndargam jub baa nga ne mooy doju xalamu jub waliyun waliyu la mursidul xalqi bi aj jubal bindee fi naasinu ku di aji laabiir na royteef la woo xam ne day wane yoon wa di waliyu woo xam ne day jubal bindee fi ak leen laabiire bañ ma nekk seen borom jawaadun ab tab la karimun te aji tedd la muxjilun te aji rusloo la kulla waabil gi wépp waamee jamilun te aji rafet la jalilun te aji màgg la faatihun te aji ubbi la moo laqa subli lu ñu tëji yoon ya ab tabla boo xam ne day rusloo waame waame ni mën a sottee ay may ma ko gën a mën a sottee yàlla booleel ko jalaal ak jamaal yaari melo yooyu yoonu tëj wu ne moo la ko mën a ubbil nga jàll salimul aji mucc la salimul qalbi te aji mucc xol la min kulli aafatin ci bépp gàkk maanixun te aji maye la fi xóotil xuloo bi ñeel dundu xol ya wal haya wal haya kili ak jëmm ya mu yaram ya yàllaa ko may xol bi set wecc xol amut dara lu yàlla bëggut te nag ku dikk boo aajoo dundub xol mbaa dundub yaram daal di koy am day maye dundub xol di maye dundub yaram fa zaahidun aji dëddu la fi kulli faanis jëpp aji jeex wax woote moom raaxibun aji sib la anil xëyri wëlis lépp lu dul yàlla fii mawlaahu ci boroomam wala xaqlu te mbir moom xel ma raajihun aji lëng la aji rafet la te diis lépp luy jeex te mooy lu dul yàlla da ko won gannaaw lépp lu dul yàlla da ko sib ba seexlu ko yàlla rek la bëgg yàlla rek la geesu geesuwul leneen xanaa waroon daa waroon bind defe naa ne falay sun gaynde la li muctadi ñeel aj jalgati waxay sun te ab taw la li mujtadi ñeel aji tablu maanaam kuy ñaan xalaa kaf yi nekk na ci téngam la mafaatihu ay caabi min kulli xayrin ci yëpp yow dafa wax ne ab tooñkat ku yedd yàlla di ko moy bu dikkee day mel ni ci moom gaynde sëñ bi day mel ni ci moom gaynde koo xam ne nag dafa bëgg yàlla te jaaxle bu dikkee sëñ bi xeet li ko mel ni ab taw di xeetlee rek xam ne teengam lii yàlla da caa def caabi yiw yëpp xam ne yiw woo bëgg rek boo dikkee caabi la ngi ci loxoy sëriñ bi jaañuxun aji boole la makaarima axlaaqil afaadili teraangay jikkoy way gën ña ngay def makaarima waxoolu bi jaamihun wanaasixun te aji sori la min kulli ma ci lépp loo xam ne te baadana ko bañ ashariatu sharia mboolem teraangaak jikkoy ñu baax ña yetta saaroo ci ñoom kii am ca lee kii am ca lee moom yàlla da ko ko booleel jox ko ko te nag dara lu sariha di bañ rek du ko jege fa badrul weer la taalif muy aji feq xalaa ufqil xaqaa'iq yi ci goxi dëgg-dëgg ya war na juman te biddiw la laamihun bi aji melxati xalaa ufqi saxaadati ci goxub texe xam ne weer woo xam ne dafa feq di wane dëgg-dëggi mbir yi mel ne di wane yoonu tasawuf yoon wañu aw ba ma nekk borom bi mel ne biddiw boo xam ne dañ cee gindikoo di xam fa texe nekk ba mën koo wuti waqad rab damm na tarfan ab gis an siwallaahi walis ku dul yàlla rabbinaa kay sunu boroom fa mallakahoo te mu fal ko buur wala fa mallakahoo te mu moomale ko la ko soob wal bayxu te jaay ga anfaqu moo gën a jar raabihun te aji tonaw la ne daawan gannaaw lépp lu bokkute yàlla géesuut lu may yàlla yàlla daal koy maye may ba moomale ko yu bari ci ya ko soob mel na kon jaayante googee jaayante gam jaayante boroomam kon mel na ne mooy jaayante bi gën a jara moo gën a tonaw taliqul muhayya aji tàlli ab xarkanam la daaimul bishri aji sax mbég la musahidun te aji dimbalee la wala aji texeel la aji dimbalee la isama wujuhul baaxiliina ndem kanami way nay ña kawaalixu way ñëkk lañu nee na buñ tolloo jamono ju naqari ba ñeen ñi nay nay ba boo leen dégmalee rek seen kanam ñaaw lool yooyu jamono moom xar kanamam day taali lool mu saxoo ndette gën a sawar ci dimbalee ngir yàlla ayaa jaamihan yow aji boole ashtaata kulli fadilatin way tasaarooyu bépp ngëneel wa man tey koo xam ne maalahoo déddi ko ñeel xaadifun jenn aji jam bay na shawaahidi ci diggante seere ya yow mi nga xam ne mboolem gënu li tasaaroo ci ñu baax ñi yàlla da koo boole jox la te itam lépp seereel na la sag mat ak jox gi la yàlla jox lépp nga neel amul kenn ku mën a jam seere soosu way yaa moo aji sal muddaaxi yow aji wottuloo way tagg ña xan xusri madd yi walis asakay taggam waman tey ka nga xam ne xoo moom faatihun mooy aji ubbi abwaabal maarifi bunti xam-xam ya ataaka dikkal na la muridun ab taalibe jiw xataaya bi boroomi ñaawteef kasiirat ni aji bari jaxoolun ku di ab réeraakon kasoolun te ab tayyalaakon taadihun te aji sonne bim ci daaxika ci sa tagg dana ko yow mi nga xam ne ñi lay tëgg ñëpp kenn mënu ca àgg ci jot sa asaka jot sa àggoo wàll ci yow asakaam rek mboolem ñi lay tëgg kenn mënu ca àgg yow la yàlla ubbil bunti xam-xam yi ba nga di ko ubbil ñeneen ci coobare yàlla ne ko day ab taalibe ñu nii ñëw ci yow boo xam ne daa bari ñaawteef lool xamadi lool te tàyyeel lool ñu ngi lay jéem a tagg nag bay sonn ci tagg yi waaye daal dañu taalibe bi ñàkk ñàkk solo walastu déet man bi vi naxwin may boroom naxwu wala luxatin du caageen luxa wala xaroodin du caageen xaroodu walakin waaye xubbi naa sunuk sopp lakk ñel la wax bi xam aji leer la ne ko man day géejuwuma ci naxwu géejuwuma ci luxa géejuwuma ci xaroodu yet yooyu te xaman a tagg dëgg-dëgg àgguma ca fañ ci war a àgg waaye nag bëgg ma la bëgg rek moo ëpp ba may def lii fahab yàlla na nga may lii ñeel ma xurban ak jege min ko ci yow wastu te yàlla na nga suturaal maha ibi samay ayub wasaamix te yàlla na nga ma baal te yaa ñi ama amul moroom almalaadu wéerukaay ba almusaamix koy aji baale li may bon bon daal nang ma jegeel sa bopp sàng ma suturaal ma ba sama benn sikk bañ a feeñ nga baal ma baalati ma ndax yow ab làqtukaay nga ab baalekat nga wax yi yàlla na nga dundal fu aay di sama xol war fa ante nga yëkkati xeexu yow sëriñ bi xadara naa sunu daraja fa inye naka man bu tajrim boroomuk yaxantulaa bi mat si ko ci sa tagg raabihunte aji tonawu sëñ bi yàlla na nga dundalaat sama xol yëkkat sama daraja tagg yi ma lay tagg dama mel ne ku ci yaxantu waaye xam naa ne du ma perte du ma lambale xam naa ne tagg yi ma lay tagg mel ne ku ci yaxantu ton rek laa ciy jëlee wala tubxi yàlla boo desal xaajan seen soxla fiye ci man illaa qadaytaha ndara nga faj ko fa laysa li xëy nii dédd ñeel sama bët bi masaarixu ay boyukaay fii siwaa ko ci kurl yow sëñ bi fajal sa aajo yëpp tey tey ndax sama bët bi kat teesuut ku may yow amul fenn fu may xool fu may ci yow rek ataala yàlla na dollee yàggal ilaahul xarsi buuru aras umraka sa dund amina mbir mu ngay aju woolu wa jaazaaka te yàlla na fayanteeg yow xanaa walis nu allahu yàlla man yàlla mu nga xam ni xoo moom faatixun moo di aji ubbi amina mbir mu ngay aju woolu wa jaazaaka te yàlla na fayanteeg yow xanaa walis nu allahu yàlla man yàlla mu nga xam ni xoo moom faatixun moo di aji ubbi bi jaaxi nabi ci daraja yonante ba al mustafa ba di buñ tànn xayri xalqihi muy ngën ji ay mbindeefam sa tan mbir mu muy waaju baax raagab kook sàkk woon na ko al abaatixu xurya bil duhoo bi ci soppi ko ay wurus moom leen wa bil aali ak ci ñooñ ya wal ashaabi ak sahaaba ya wal xurri ak sang ya kullihim képp ci ñoom alayhim yàlla na doole nekk ci ñoom salaamallaahi teralu yàlla ak jàmmam maa faasa li fekk taxe na maa dixul aji tagg fa daaneelu xaside gi ñaan yàlla gën a guddal fanu sëriñ bi may ko jàmm te yàlla rek ko mën a fay yàlla nanu ko fayal ci dara yonante bi nga xam ne moo gën ci mbindeef yi di waaju baax joo xam ne yàlla mayoon na ko xur yëg doj yi soppi ko wurs mu moom ko ëppale ñëpp mu jomblu loola yonante boobu ak i mbokkam ak i saxaabaam ak mboolem sang yu baax yëpp yàlla na yàlla saxalal leen tiraanga ak jàmm li fekk nga xam ne waaye ngi nii ju tagg sëriñ bi amee nag taxe ca tagg wa walahu aydan ida taaba ndeem teey na fii laylaa ci laylaa xewan cofeel li muhibbiha ñeel aji soppam fama taaba teewit li ñeel ma illaa suran ndare rañaan li ximaaka jëm ci sa kaaraange nekk sëñ bi bu fekkee am na ñuy sopp jongoma ni ki laylaa mel ne seen xol a ngi sedd ci am laylaa rek seen xol a ngi tànge ci ñàkk laylaa man day dara neexul sama xol lu may rek rañaan jëm si ci yow rañaan jëm si ci béréb bi nga nekk wa in kaana ndem nekk na dikraaha tuddug laylaa ak ak fàttalikoom siwaakan di ab soccu li shaayixin ñal aji sopp falay sa siwaaki déet sama soccu siwaaka ndara yow yaa malaazu yow wéerukaay bi su fekkee am na ñoo xam ne jekk di tudd laylaa jongoma daa mel ne soccu bu ñuy soccoo di ci dëkk man day yow rek ci yow la am mbégte lépp lu ñuy bégge rek man ci yow laay amee mbégg duma ko am ci leneen waxib danaa sopp minal aswaaki ci xeeti socc yi xaqan ci dëgg-dëgg araakaha seenub gaw garabu gaw ba xal liye ndax lee man araaka ma gis la il xultu ndem wax naa al araaka baatub al araaka bi firi ab gaw socc goo dañ koo tagg lool ci xeeti socc yi mu ne ko xeeti socc yi gaw laa ci gën a taamu te sax man la tax ma taamu ko mooy al arak lisim la di firi garabu gaw waaye daa xal nga doon teeg fi xal bi nga xam ne mooy ara boo jokkee ka mu dellu ci ngay waxanteel tamuy góor may gaat nga nag su ma nee araak muy ab gaw ndax loolee ma cay gaat nga yàlla may ma ma teg la bët rek waaw ndax araaka dinaa la gis daa niroog araak garabu gaw kon nag araak moom laa gën a taamu ci socc yi ndax dama cay gaat nga rek su ma tuddee baatu araak yàlla may ma ma gis la iza ma araakum ndéem danaa leen gis taaba tuub teltu gannaaw dëxër yi sama jamono ji ëllës yi ji nga xam ne janaa tooñoon na wa taaba te mu dellu li salmin jëm ci maaraloonte bis ci laa mi janaaka ci wommat sa meññet wala ci wommat sa kottiteef li tax ma lay bëgg a gis mooy su ma la gisee rek day mel ne sama adduna si nga xam ne dama doon tooñ ak gotti day mel ne daa tuub dal may nangul lépp lu mu gàntu woon dellu bëgg a juboonteeg man ndax rek gis nga ma la gis ba am ci yow ma yooya nga ma may te tax sama adduna si naqari woon lool di ma tooñ rek mel ne daa wëlbatiku rek tuubal ma di ma jéggalu bëgg a juboonteeg man xawaaye sama cofeel xuwa moom alxubriyu ko jóg xubriyu la fii ko ci yow fa ma ñëlum ku yedd it faqad baana feeñ na xubriyu sama ngànt fii sabili xawaaka ci yoonu sa cofeel ni ma la soppee daa mel ne dafa àgg ci cofeelu banu xubrata ba tax na ku ma mën yedd ci cofeel googu itam day sonn rek waaye ëwma ci sama sago moom ma ci saa bopp ci cofeel gi fa zikru ko sëg tudd axyaa nii dekkalaat na ma xayaahu tawam ba takarruman ngir tedd nga wa shukru ka sag cant axyaa nii lottal na ma wa xasru na daaka ak takk sag tab sag may tudd gi ma lay tudd day mel ni ak taw la buy dekkalaat sama xol te loolu lépp loolu lépp sa mbaax la ak sa ngëneel cant gaal war cant nag moom xam naa ne tële naa ca ndax mënuma wax dëgg-dëgg may yi ma may nam toll ida ma sanaa ndeem lem na faqru ñàkk xinaa xëy naa nii sama gog bi kasin xëy ni xañil xulaa walis kawe ya danaahu delloo ko ileen xal yaay jëm ca mbir yu kawe ya tey bu tanaaka teyuk sa tagg su fekkee ne ñàkk dama bëgg wëlbati ba duma àgg faa war a àgg ci kawe tagg yi ma lay tagg rek moom moo ma yëkkati ba àggali ma ca kaw li kaw li kaw wa imma xawan ndem bànneex bii bi nekk ci man xad xawaa xawiku na bii ak man ilat tawaa jëm ci alkande te daaru kan yi dal may dabaatal jadduwaa jadii di sadaaka tabuk aji yeesi sag may sadaa bi firi garay rek waaye foofu moo ak may benn lañ dane bànneex day lor nit sama bànneex nag su bëggee xawikoog man yóbbu ma ci alkande sama yu bari yu yees yi ñoo ma daal dabaatal ba bànneex boobu duma mën a yóbbu ci alkande mucc rek laay def fa joodu ko sag tab jëwdun ab taw la laa yuqaasu boobu déeful natt bi ci ci moom jadoon genn may wala jadoon benn taw walay sa yu baar yi te du rawanteeg alxurru sang yi tuula ma daaka guddug sam lef taj bi nga amee yàlla defal la ko daa mel taw boo xam ne boo si nat beneen taw mooy tab la goo xam ne su ko nat ci geneen tab te sang yi li ñu baax baax xam nañ ne fa la yàlla àggale ngir ñu faa jéem a àgg yemiinu ko sa ndeyjoor yum nun barke la wala yesaaru te càmmoñ ba yesaaru naa mooy sunum koom wa kafu ko sa teng kaf fa fekk na xalaakan alkane xanaa walis nu cheikhuloo sëriñ bi sa loxo ndeyjoor bi lépp barke la sa loxo càmmoñ bi lépp am koom la ci nun sa téngal yi moo nuy fegal alkane bu nu dëgmal si woon waraaxatukum te seen téng raaxatul ab noofulaay la lii ñeel ma min mashaqatin ci bépp coono wala xar wa du kiimtaan an asmoo ma yëkkatikoo bi saw bi samaaka ci sottik sa tawub asamaan samaaka boobu sama ika la woon dañoo dëgg fa am sa njëgër yi dana ko si téng lii day man ci laa amee ab noofulaay tàggoog bépp coono kon nag ñii ma demee ba ca kaw ni kaw ngir sama yu bari yi wërtaleem kenn sabaqata raw nga ilal xal yaay jëm ci kawe ya jëm ci mbir yu kawe ya kulla mubaadirin jépp aji jëkkante bi it ñi lëf yi ci nameelug yàlla mi nga xam ne ahbaa xumeew ahbaa ay rubaahi yu bàyyikoo ci xabaa moom nag ñu jëfandikoo ko ci bariwut te su boobaa dañuy firee ahba mooy na njum la maanaam fett gam doon sànni ak gut ca lam bëgg na jam muy tawaqafa sahmuhu anil hadaf kon mel na ne say boonu jàng ahba humoo may na leen waa xabaaka te mu may la ne la kon daa andi ahba moom jublu ci rek maye ni ki xabaa bi classe yi mbaa bokk nu far jàng rek xabaa homo may na leen wa xabaaka tam